Mesdames, Messieurs les autorités religieuses, Mesdames, Messieurs les autorités administratives et politiques, chers frères talibés de Saint-Louis et d'ailleurs, le septembre en effectuant une prière de ce geste de foi, de courage et d'espoir pour l'islam devant les autorités coloniales qui devaient décider de son exil injuste dans la forêt équatoriale du Gabon est à plus d'un titre le symbole aujourd'hui de notre indépendance spirituelle, culturelle, économique, notre indépendance tout court. Si le mouridisme brille aujourd'hui de mille feux dans le monde entier se distingue par sa contribution inégalable à l'islam et à la culture sénégalaise, son apport considérable au développement économique et social du pays. Nous le devons au geste de Cheikh Al-Khadim, à son travail spirituel, à, ses, à sa patience, à sa foi inébranlable en Allah Nous le devons aussi à ces premiers fidèles qui se sont évertués à étendre le mouridisme partout au Sénégal par la création de nouveaux villages, l'édification de dara et de foyers islamique le travail de la terre, etc. Vous me permettrez d'ouvrir ici une petite parenthèse sur un événement qui a indigné plus d'un dans la communauté mouride ces derniers jours. Une musicienne s'est permise lors de sa fête de se faire faire un gâteau d'anniversaire sous la forme de l'image de la grande mosquée de Touba et de Cheikhul Khadim. Cet acte est certainement la conséquence d'une ignorance totale de la personne du Cheikh et de son œuvre hautement spirituelle, ou bien une volonté délibérée de désacraliser les symboles islamiques et mourides en particulier. Ce que nous célébrons aujourd'hui lors de ce Magal, c'est le travail d'un homme de Dieu, ses immenses sacrifices pour le bien de tous. Il est inacceptable que cette œuvre soit foulée aux pieds. Nous le condamnons avec la dernière énergie. Je ferme la parenthèse ici pour revenir sur l'objet de mon propos. c'est-à-dire le parrain de l'édition 2016 du Magal des Deux Rakkas à Saint-Louis. Le parrain de l'édition de cette année a été le digne successeur des premiers mourides sadiques qui avaient tant sacrifié pour l'édification du mouridisme. Soufi authentique et mourid sadique qui a consacré sa vie entière à l'application stricte des enseignements de son illustre grand-père Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Abdou de par son physique frêle marqué par le suivi strict du tasawuf, un jeune de presque la moitié de l'année, l'édification de mosquées dans toutes ses concessions où il tenait à diriger lui-même les prières canoniques, son comportement exemplaire marqué par son détachement de la vie mondaine, la dévotion assidue à Dieu et à la khidma, c'est-à-dire le travail acharné au service de l'islam, au service des nécessiteux au service de toute la communauté. Serigne Abdou, disais-je, rappelait à bien des égards la personne de Cheikhul Khadim. Homme de spiritualité, mais aussi homme d'action, de Nasrou dans le département de Mbaké, Ndiaye Ndiaye dans le Saloum, au village qu'il avait nommé Mamdiara et dans bien d'autres localités, Serigne Abdou Hakim s'adonnait à l'éducation des jeunes musulmans, à leur formation à la culture de la terre contribuant considérablement à l'expansion du mouridisme et au développement du Sénégal, devenant l'un des plus grands agriculteurs du pays. Jusqu'aux dernières années de sa vie, il ne dérogea jamais à sa mission sur terre. Touba Madina en est une illustration. Vaste territoire agricole presque vierge que Serigne Abdou a entrepris de défricher et d'exploiter durant les dernières années de sa vie. il s'agit d'un véritable nouveau Khelkom dans la région de Kaffrine. Son frère aîné, Cheikh Mohamedou Muntaka, tenait durant ces années à mobiliser toute la famille de Serigne Bassirou et tous les talibés pour prêter main forte à Serigne Abdou et à se mettre à son service. Une manière de lui témoigner toute la gratitude de la communauté mourite pour le rôle éminent que Serigne Abdou à toujours juillet à Khelkom. En effet, pendant plusieurs années lors des travaux demandés par Cheikh Saliou radiallahu ta'ala anhu au khalife de Serigne Bassirou de l'époque, Serigne Moustapha Bachir. C'est lui, Serigne Abdou, que son frère aîné désigné comme Djawriñ sur le terrain, tout le temps que duraient les travaux, montrant ainsi son dévouement total à ses frères aînés et travaillant toujours à la cohésion et à l'unité de la famille de Cheikh Mohamed Bachir. Son charisme, son sens des relations humaines et son humour légendaire ont fait que l'attachement de ces talibés à son égard était viscéral. Tous les musulmans avaient aussi un grand amour pour lui du fait de sa piété et son soutien envers les démunis. Il était parmi ceux vers qui les indigents se tournaient pour, par exemple, trouver de quoi payer leur ordonnance médicale. On ne saurait terminer sans parler de la relation particulière et exceptionnelle qu'entretenait Serigne Abdou Hakim avec son frère aîné, Cheikh Mohamedoul Muntaka, actuel calife de Serigne Bachir. Il nous suffit de dire qu'à plusieurs occasions, notamment lors di Magal de Porokhan, quand Serigne Abdou lui rendait visite, il demandait souvent au talibés présents de réserver toutes leurs prières à Serigne Abdou. Toute prière que vous souhaitez formuler pour moi, réservez-la plutôt à Serigne Abdou, disait Cheikh Mahmoud Muntakha. La vie de Serigne Abdou Hakim, ses qualités morales, sociales et spirituelles, son œuvre montre qu'il a inscrit son action, sa vie durant sur le sillage qu'avait tracé son illustre père, Cheikh Mohamedoul Bachir, son illustre grand-père, Cheikhul Khadim. choix ne pouvait donc être, être plus judicieux que celui fait par le Courriel de l'Euraka de donner son nom à cette édition de 2016. Que, re, que en soit infiniment remercié pour l'honneur fait à la famille du parrain, Serine Cheikh, ses frères et sœurs et tous les talibés. L'honneur fait à toute la famille de Serine Bassirou, à sa tête Cheikh Mahmoud mais aussi à tous les mourides et musulmans Serigne Abdou Hakim était une figure éminemment mouride, éminemment islamique, une référence qui continue d'éclairer le chemin de nombreux musulmans. Il est heureux aujourd'hui que cet événement porte son nom et que sa vie soit donnée en exemple aux nouvelles générations comme référence à imiter et à suivre. Je vous remercie pour votre aimable attention. Wasalaamu aleykum wa rahmatullah. loolu de alhamdulilahi rabbil alamin li ñépp xam ci moom mu defal ko ñépp góor ak jigéen mag ak ndaw ku ko xam ku ne xam nga lum la defal loo mën a waat lu bët mënta gis loolu yi rekk lanu dimbalee moom daf fi ñëwoon ngir wallu mbindeef yi ngir xett li te sunu borom dogal jamono ñëpp mënuñoo bokk doxin mënuñoo bokk mbedd mënu sor te ñëpp war a mucc moom nag liggéeyam daa bokkoon ci nu muy def ba mbooleem kuy sosi ci moom nga mucc loolu mën naa ne moo waral lii nuy wax daara ahlul minan daara la joj ñi ci ëpp ay jàngkati tubaab lan dëkk ci dëkki taax demuñu ci tarbiya demuñu ci daaray taalim waaye sëñ tubaa lan yaakaar moom lan jaaree sëñ tubaa te moom mu garoon bakkanam ci dundam gi lépp di ndam di fàttaliku jëwriñam ju mag jooju nga xam ne moom la teg bët masula masula geesoo jëwriñ ja daa waxoon boroomam ne ko lakkaru jon yi maaha jumoo yi bi xayri jon yi wala xataay man ni ma koy firee mooy maa ngi dem danaa dellu si ànd ak ñépp kenn du xiif kenn du tilim euh, loolu mooy lan su may dellu si fii fi yow ànd ak sama mbooloo du ma fi indiwaale ku xamul yàlla du ma fi indiwaale ku am bakkaar gannaaw moom sëriñ bi la gar bakkanam def ko muy léppam moom it mu bëggoon mboolem ku nuy tudd di ko tudd buñ la gisee na eskay donte jëfoo la ko may loolu moo sabab daaray ahlul minan muy wallu ñi dëkkee taax defee na ko noo xam ne nag mooy kawteef ci ñun kenn ku ne ci ñun fàtte nga sa ndey fàtte sa baay ngir moom kenn ku ne ci ñun defal na la lool jàpp nga ne yaa gën a yee ci moom Serigne Bassirou yaa yee ci moom sëñ kenn ku ne kenn ku ne ci daara ji nag ki gën a tuuti ba ci ki gën a mag jaar naa ak yow foo xam ne jàpp nga ne nim la fonkee fonkee ko ñi ñuy tudd di ko tudd kenn ku ne ci daara ji dimbale na la ba nga xam li nga war a xam-xam sa bopp loo defat yaa ko tey waaye li nga war a def lépp xam nga ko ni nga war a melit xam nga ko ba noppi mu defal la ci sa bopp yi la war a gàllankoor ba doo mel ni nga war a mel dimbale na la ci ba xëy na bis wax ñu ci poroxaan ne ñu ku ci ñàkk jot li la tax a jot tuddal sa bakkan bul tudd seytaane jotewul ak yéen dara loolu ndimbal fa la mën a yem kenn ku ne ci wàllu zaayir li tax nga fàtte say waajur mooy ku ne ci ñun la njëkk ci sa kër moo ko def moo lay joxoñ fi nga jëm moo ciy jiital alalam jàpp ne maa boo waxee mu ne maa leen war a féete fépp te kat ñun defaluñ ko dara bayaluñ ko tool xottiluñ ko mbubb jëndaluñ ko oto séquñoo moom lenn lu dul di jàng xasaay teg alxuraan mosuñ koo jëriñ dara waaye mosu koo gis soo mosaana ñëw toog ak moom yow mi nga xam ne ci daara ji nga nekk kuy yëngu ci àdduna ba am tur fekk la fa dana def ak yow noo xam ne day jaaxal kooku loolu li ko waral mooy lu dul boromam ñoru ko ba tax nag ku niru ku niru ne yaa ngi yëngu ci sa borom rek yemaleetu la ci boppam fenn yemaleetu la kenn itam euh, daara yi nag daara yu yaatu la Kaolack la sosoo wéy ba dem ndakaaru wéy ba ba ndar gi wéy na ba Touba ba fu nekk am na fa ci dëkk yu mag yi Euh, ñu maase ànd di jéem di jéem a aw fi ñu awloo donte mënuñu ko euh, defal nanu lu ñu jomb ñun ñëpp ànd na nangu ci loolu li loolu li ci dayu firnde mooy lu bàyyi lu bàyyi di defal doom defal nanu ko mooy euh, bi mu fi jógee sax dañoo am cër ci moom mboolem bërëb bu ñu doon liggéeyee te mu moom ko daf nu ko bàyyee bokkut ci ginnaawam lu ñuy toppatoo kooku kooku fi mu fi mu nekkoon ak ñun sori na lool kenn ku ne dimbale na la ba xeet wi nga bokk boo ca gënul it kenn yabu la te doo te defaloo ko dara defoo doo dara li ci gën a li ci gën a doy waar mooy xam nga yow ci sa bopp ne doxoo waaye nag euh, moom moo mel noonu daara ji ñëpp a ngi maasee di di ñaan waaye daara ji lim ko gën a sante mooy nim nu defal jëwriñ ñi ñu bàyyeel loolu loolu mooy cant gu mag gi jëwriñ yi dale naa def ni boppam kenn koo ci topp Sëñ Abdu nga topp kenn koo ci topp li nga xamoon ci Sëñ Abdu rek ngay gis ci moom mas na maa wax ne ma ñii ñii tuddee samay doom samay nawle la waaye xam naa ko fi ne wax jooju fi mu ne laa ko door a xam fi mu ne laa door a xam ne ndeke ñoom noonu lañ mos di doxee xëy na man maa ko xamuloon waaye moom xamoon na ko ba wax ma ko loo xam ci sëñ Abdou moo ne ci sëñ Cheikh moo ne ci ay rakkam yépp bëgg lu baax te muy dëgg ci yow bañ lu bon te muy dëgg ci yow nga di ko daw foo toll jub jubal am yaraki teggin ne ci li nga war a nekk na nga ca war a nekkee te dara jaralu la nag ñàkk caane loolu lu doy waar la ah, su su su mënoon na mënoon na ñoo sàggan te doon suñuy kilifa hmm. kon it da day métti rek waaye du tey ñu doon suñuy kilifa waaye sant nañ yàlla bu baax gërëm si Abdou ci nim ñu defal jëwri nim ñu booleel loolu sant nañ ci yàlla sant ci sëriñ bi gërëm ko waaw dimbale nañu alhamdulilahi rabbil alamin xamuñu li ñuy wax dañuy wax nii rek bu juróomi ni di jeexee ñu ba waaye bëgg na daal ngeen xam ne defal nañu lu ñu jomb wallaahi laasim naxuñu waruñu li ñuy toppee sëñ Tuubaa dimbalee nañu ko waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëñ Touba maa ngi ziar bu baax waa kër sëñ yi fi nekk jël sama ziar tàbbal ko ci loxo sëñ Isaaxa sëñ Abi eh, sëñ Abdou Samad sëñ Abibu ngeen may ma ma tudd sëñ Axmamu sëñ Moustapha sàmba sama sëriñ di wax ñu jottalil ma ko sëñ Cheikh Sidi Makhtar yàlla na fi yàgg te ndamal yoonu murit la yàlla nag yàlla dimbali ba naal yi mu sonk yépp mu àggal ko bu sumb yeneen naal sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te yàgg naa ko wax ni ka sëñ Muntaxa da ngay dalal xelu taalibe yi seral seen xol yàlla na fi yàgg te wér passage de bi nekk diggante sëñ Saaliwu ak sëñ Baar sëñ Muntaxa def na fi lu rëy loo xam ni ñépp xam nañ ni sëñ Tuubaa booba mi ngi fi ba tey nangul gu mu nangul sëñ Baara ñun yoonu murit amuñu fayam yàlla na ñu ko sëñ Tuubaa fayam sëñ Abdou Hakim dafa nekk tontu loo xam ne sëñ Tuubaa tontu na ko tubaab bi bi mu ko doon indi fii ñu koy àtte gannaaw julli ñaari raak boo ko xam ne àddina bi yëpp xam nañ ko booba dañ ko doon yóbbu pour suul ko suñ ko suulul nii ñu boom ko waaye suñu demee tey ba noo màggal ñaari ràkk yi mu am sët bu ma ne sëñ Abdou ñu tudde ko bés bi tontu lu rëy la sëñ Abdou Hakim nag ku kéemaane la man suma benn xarit xamoon naa ko waaye sama benn xarit Cheikh Gumba la moom mu yóbbu si moom ma am xisa boo xam ne du ma ko dund si moom ñu dem fekk ko booba mi ngi soog a sanc Touba Medina te lu yéeme si moom fu mu sanc fu nekk tant que jumaa ja jàkka ja parewul benn néeg du taxaw maa ngi ko fekk si néegu ñax ñu demee ba tàkkusaan di waa jot mu ni ay ci leen julli ji boobu mi ngi xiit ba lëndëm fi noo dem rek taw bu metti song na wàññeekuwul de mi ngi saax-saaxi tànk yi jëm sa biir jumaa ja ma gis doxin bi te dañ ma doon wax ni ma sëñ Tuubaa doxu ramatu lay dox sëñ bi di dox dox googu ñu toog ba yàgg saa mu ñëw dugg si jumaa ji bi mu duggee si jumaa ji xàll nit ñi dem ni allahu akbar bi mu ko waxee billaahi sama rangoo ñi dafa wante bi may wax allahu akbar ndax sëñ Tuubaa képp laa gis si moom sëñ Abdou Kim képp koo xam ni yàlla dafa nekk si yow as tuut lu mu tuuti tuuti su dee pepp la nekk si yow soo ko gisee nga xam ni ku jeex si borom la ku am cër si boromam la su fekkee nii da bëgg sëñ tubaa lu mu tuuti tuuti soo gisee nga xam ne kii sëdd na si sëdd na sëñ tubaab bu mu mat sëkk dama koy xool benn bés gis si moom loolu ma ni ko mbàkke yàlla xam na ne su ma jébbal woon mbokkuma ma si taaliba yooyu di jébbalu ku nu gis jébbalu jébbalu naa si koo xam dañ ma ko jébbaloon ma dem ba mu doy ma ma am as tuut ñëw ni ko dama lay jébbalaat sama bopp waaye su ma jébbal woon si yow laay jébbal mu ne ma ni ko nan ko def kolëre def kolëre àllaaxira yàlla daf koy laaj borom moo taxit lépp bi ma ci liggéey fa la ma fekk sa biir këram nga xam ni kon sama lépp bi ñu koy denc te sëñ mu taxaa di yamoo ya maa ngi toog foofu dama leen nettali beneen xiisa sa laay jeexale mooy dafa amoon mettit wu nekk si yaramam sama rak di professeur ànd ak ñeneen bëgg ko faj mu tëleen rek dañu mujj jaar si sëñ muy soog a nangu ñu opéré rek bés ba ñu ko opéré ba mu ñëw di ko ziar di ko mbàkke ñu lay ziar bu baax te di ñaan nga wér mu ma dikkee yàlla tegul jaam lu mu àttanul metti lu mën ñëw yàlla def na jaam wax na ko ma nangu sant ko boromam kii moo gëm yàlla kii moo mat li mu doon te ñax dokkim kéemaan la woon gu mat sëkk yàlla nañ ko sëñ Tuubaa fayal waaye nag sëñ Cheikh Sidi Maxtaar wane na ni kéemaan la bés ba mu wàccee liggéey moo ñëw kër sëñ Basiiru taxaw ka taxaw ba nga ko taxaw kooku borom cër la woon ku mat sëkk li si des mooy sant bu baax sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh sama kóllëre googu nekkoon diggante sëñ Abdou ki matal nga ko sëkk yàlla na la yàlla fale ñépp xam nag sama diggante sëñ Isaaxa nu mu doonee sama xarit li si des mooy yéen taalibe yi ni leen sëñ Tuubaa amul morom soo nattee ku man am sët bu mel ne sëñ Abdou Hakim rek nga xam ne sëñ Tuubaa kenn du ko denale kenn ndax ab Abdou Hakim moom dafa résumé li nga xam ni moom la sëñ Tuubaa bëgg jaamu yàlla gu mat sëkk jeex si boromam te ñeme liggéey fekk naa ko si daara yu bëri kooku borom mbir la yàlla nañ ko yàlla fayal kon nanu lax suwaat xam ne suñ tubaa mi ñu yàlla féeteel moo jar àndal fu nu toll def na la sëñ Ablaye waxoon sëñ Ablaye dafa doon yóbbante ngërëm si Medoune Fall jëmale ko si ab Diouf waaye dafa ne ko bala may yóbbante ngërëm bi dama la bëgg wax ñett yi ñun yaakaar wóolu doyloo defoon ko ku dul sëñ tubaa jërëjëf sëñ tubaa alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa saxbihi wa xadimihi wa bi radwaani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu bokki jullit yi fi teew yépp di ay bokki taalibe mbokk yi bàyyi ko Touba ak yi bàyyi ko ci gox yi ci Sénégal yépp ak mbokk yi ñu fekk fii ci dëkk bi di Ndar ak waa kuréel bi di leen nuyu ci turu sëñ Cheikh xam ne mooy jëwriñ sëñ Abdul Hakim radiyallahu anhu mu ñaan ma ne naa jottali ay kàddu ci turu sëriñ Isxaaq mi nga xam ne mooy sëriñ Abdul Hakim ci ñoom te diggam ak sëriñ Abdul Hakim mayu ko mu mën a wax ci moom man itam caddax naa lool ci waxal ko te matuma palaasam waaye pexe amul nu jim rek kon sëriñ Isxaaqa nee na mi ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Muntaxa mi nga xam ne mooy jëw nañu kër Cheikh Mouhamadul Bachir di leen jottali kàddu yi sëriñ yi tam mu wax ne sëriñ Muntaxa nee na mi ngi leen di nuyu ci turu sëriñam magam kilifaam léppam ak Cheikh Sidil Muxtaar yàlla na ko yàlla yàggal te jottali ak cant ci mboolem mbokk yi fi teew ak taalibe yi ci bis bii nga xam ne dañu ko tudde sëñ Abdul Hakim te mel na ne tur wi bu ñu nee sëñ Abdul Hakim lañ ko tudde sëti seen tubaay yépp lañ ko jox kër gu ne am na ci cër kër gu ne gis na ci boppam kon nag sëriñ Cheikh nee na mboolem këri sëriñ Touba yi tàmbalee ci kër Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci kër Cheikh Mouhamadul Mourtada kër Soxna Fatimatu Dia ba ci kër Soxna Maymunatu Suxra ak bokki sëriñ Touba yi nga xam ne dañoo bokk ak moom sëriñ Mbàkke Mor Anta Sali te jaay bokk ji jënd ko ak taalibe tàmbalee ko ci sëriñ Mamor Diarra. ba ci sëriñ Masamba ak mboolem askanu Mbàkke yëpp sëti së sëti mambal ay sa yëpp ak askanu Musóobe yëpp ak seexi sëriñ Tuubaa yëpp cant gi dugg nañ ci biir cant gi xëy na jataay bi yàgg na te buñ duggee ci ay tur danañ am jafe-jafe waaye ñoo ñii mu wax ñëpp dugg nañ ci biir xëy na nag lu mu néew néew du mën a ñàkk a tudd ñi mu àndal liggéey bi te ñooñu nag mooy ñi mu bokkal Cheikh Mouhamadul Bachir tàmbalee ko ci kilifaam gi nga xam ne mooy wasilaam te moom la ko sëriñ Abdul Hakim joxoñoon ba ko noppee gis mu jox ko ay loxo mooy sëriñ Mouhamadul Mountakha moom day yëgut ne sëriñ Abdul Hakim dem na. sëriñ taxa moo ñàkk jëwriñ moo ñàkk rakk waaye moom ñàkkut bàyyi ñàkkut sëriñ jooyu dara sëriñ Abdul Hakim koy sant ci léppam ak ci ñéppam ni mu defee ci bis bi rek dañoo tolloon bis bi moo tax ñu di ci sant waaye ci léppam la ko sant ndax ki nga xam ne mooy taawam di sëriñ Moussa di jëwriñam dafa daal di jox ndigal ñëpp ay rakkam ay doomam ba ci sëñ Moustapha moom sëñ Abdul Xafoor mii daf ko jox ndigal ne ko mboolem loo defoon ci sa bisu bàyyi ba daaw na nga seetlu toll noonu nga def ko wala nga def ko loo defoon ci bisu sëñ Moustapha Mouhamadul Bachir na nga def lu toll noonu wala nga def ko loolu nag mënu si koo weesu te noonu musa sant sëriñ nag ni la sant mboolem sëti sëriñ Bachir yëpp jàppale nañ ko kenn desul waa kër sëñ Moustapha yëpp ñëw nañ waa kër sëñ Fallou ak sëñ Isaaxa ñëpp ñëw nañ kenn desul waa sëñ Moussa kenn desul njabootu sëñ Basiru sët yi waa kër sëñ ñi nga xam ne dañoo sëtoo ci wetu soxna yi ñi sëñ Basiru jur seen waajur bu jigéen ak ñi sëñ Basiru jur seen waajur bu góor ak sakaati sëñ Basiru yi ñépp ànd boole seen bopp jàppale ko ci liggéey bi ba mel ni mu mel lii lii ngeen gis lépp lu fa rafet ñoo ma moom yoonam nekku ci kon nag mi leen ko seereel ci kanam bokk yépp ak cantam ak xolam bu set Isaaxa nag moom doy na sëkk misaal ci sëriñ Abdul Hakim mook sëriñ Fallu dañuy damay faral di wax dama ko daa misaal ci sëriñ Basiiru ne nit day ay jàmbur mën nañ laa naw waaye li li ma tey yéem mooy say bokk naw la loolu dafa daloon sëriñ Bachir waaye daf ko war na sëñ Abdul Hakim sëñ Abdul Hakim ay rakkam ñoo ko gëm loolu moo gën a jafe loolu sëñ Touba daf ko ko rafaatale sëriñ Isxaaxa mi ak sëriñ Fallu boo ko doon misaal da nga naan ñoo sëñ Abdul ñetti wusi cin lañ mosuñoo tàggalikoo benn yoon ku leen xamit xam ne fa ñu teg sëñ Basiiru lañ teg sëñ Ibrahima te ñoo goneendoo goneendoo nag leneen la ku ànd ak ñi ci ngone ba doon mag ba noppi gëm ko ku ma te gëm ngoo te ñoom dañoo gëm sëñ Abdu sëriñ Abdu nag la sëriñ Basiiru daa wax ci moom rek sëriñ Abibu nee na toog naa mu romb ko mu joxañ ko daal ne Abdu mii de sëñ bi am naa ci moom yaakaar yaakaar joojee mu amoon ci moom la mooy yaakaar ji sëñ laa Ahad sëñ amoon ci laa yaakaar naa ne tësul waaye moom yaakaar ji tësul moo tax bi muy toll ci tuut tànk di jàng at yi néew lool mu ne ci loxol sëñ bu Mbàkke dafa am bis mu wéet ak moom ne ko dama laa soxla mu defe ne lu ne la koy wax mu ne ko lenn rekk laa bëgg nga ñaanal ma ci yàlla mu ne ko waaw mu ne ko nga ñaanal ma ma sax ci bëggu sëriñ bi te bañ ko wàcc dee tey ak dee ëllëg laa yemale soxlu ma gudd fan soxla rëngalu ma gàtt fan waaye naa sax ci bëggu sëriñ bi rek kooku foofu la newoon xam naa bu ñu ko doon misaal rek dañuy wax ne alquran dafa wax benn aaya mën nañ ci yéegal seen jàpp auzu billahi min shaytaan wallazina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi imaanin alxaqnaa bihim zurriyatihim gaa ñi yoon ba kenn defe ne mënuñoo mel na ñoom waaye nag seeni sët ñëw di ñoŋ ñoŋi di jéem góor góorgóorlu ba teg seen tànk fañ ko tegoon dañ di yéegal nag ca daraja yooya noonu ko alquran waxee nag dafa feeñ ci sëriñ Abdou doomi sëriñ Tuubaa kenn du ñoom waaye man de yëg naa ne bu ma toogee ci sëriñ Abdou la ma daa yëg ci doomi sëriñ Tuubaa daa yëg ci moom bu ma ñaanalee la ma yëg ci ñaanu doomi si Tuubaa laa yëg ci moom kon nag kenn du ñooña waaye yéegal nañ ko ci seen i daraja ba mu dem soob na yàlla yàlla mën na ko te loolu la mën naa ne kilifa la ñu taamu woon lool sëñ Mourtada jullee ko man mii maa dem ba ci moom wax ko mu ne ma duma mën a ñëw waaye nañ wax Abdul Hakim mu jullee ma ne ko taamu woon na ci taamu woon na la ci lool de ndax soxla woon nañ yàlla jéggal ko te man wóor na mën boo ko tiimee suñu borom jéggal ko mu ne waaw mënuñoo mënuñoo ñëw waaye baax na benn la loolu doomi Sëriñ bëggoon a gàttal mbir mi da nga koy tënk ci ñaari baat yu gàtt kenn du Sëriñ Tuubaa waaye am na lu mu ko rafaatale loolu yi Moussa Ka wax ne lewet ba ne doom wayax ba ne tooy diis ba ne gann ci wet lewet ba ne doom saf saf ak boroomam loolu la jël ci sëñ Tuubaa sëriñ Basiiru ak Cheikh Mouhamadou Moustapha dafa am bis sëriñ bi di ndamu ci ñoom te booba la ko waral moo di ci jamonoy sëriñ Mbàkke Mor Anta Sëriñ dafa am bis sëriñ bi bind aw këyit jox ko sëñ ngir bañ bëgg mu bàyyi jaxasoo buur yi liy wax ne wa man yusharikum ona fi isihim yakun jari sërikahu xadan fi zullihim lakinnama xudat xaawul ay nangam nangam mooy bay doo ci ak yowalu nafis teg ko ci ron ngeeganaay sëñ Mor gis ko mel ne lu koy xaw a gaaral loolu suñ moom ne ko Muudu Mbàkke damaa bëgg waxtaan ak yow lii nga may wax lépp gis naa waaye damaa bëgg nga xam ne ak noo mën a mel ak loo baax baax maa la kii ndigal nag yow ba am doom man sëñ bi toog ci njariñ sëñ Basiiru romb ko ak Cheikh Mouhamadou Moustapha di gone yu toll ci digg fukki at ak ñett jëm ñaar fukk foofu xam-xam bi mat sëkk ragal yàlla gi mat sëkk taal bi mat sëkk mu di leen xool di leen xool ba mu ci mënatu ko muñ mu ne sama sëñ sama góor ga di sëñ Mbàkke moo naan sëkk la ma waxoon ma am doom ju mel ne man doom maa waroon naa gis sama ñaari gone yii dana xam ne am na doom de waaye man am naa doom waaye nu itam de nun wóor nañu ne ci baaxu Seex Mamadu Muntaxa at ci ñàkk kañaanam ak jëfam jooju nga xam ne sët yëpp la ko defal taalibe yëpp la ko defal moo mooy fab sëñ Abdul Hakim yóbbu ko ci Cheikh Mamadou Bachir te yàlla na ko ci yàlla fay lu kawe njortam foofee mu nekk tey ci kanam gannaaw Cheikh Mamadou Bachir bu sëriñ Touba nee sëñ Mbàkke moo ante sëriñ am nga doom waaye am naa doom Mouhamadou Bachir mii sëñ Basiru dana ko ne sëriñ bi yow itam am nga doom waaye am naa doom Abdul Hakim mii dana am kon nag li mu nu ji mënuñu koo fay nun mu nu ji nun mbokk yi mënuñu koo fay man ci sama jëmmi bopp man lu ma ñoroon lu ma ñoroon dëgg dëgg dëgg dëgg bi moo ci doyal sama jëmmi bopp sëñ bi doo ma ci doyal ba ci firnde yi mooy sama biir kër jàkka jama fa def moo te xeer ba mu noppee moo ko julli te ci ci safar bi mujj ñëw na tuddal ma sama doom ci rajab la kon la ma ñor ak la ma gëm lépp moo ma ko daa defal te loolu yaatu na lool nag mën na am waxaale yu bari sëy bu daal boo ko bëggee xam mooy ñi gëmul dara moom lañ gëm ñi gëm ñenn moom lañ gëm ñi gëmul dara moom lañ gëm te moo ko def nag ndax serofat la kenn amul loo wax ci moom dafa jóg rek nag xocc tegu ca yoon jub xocc daf daa wax ne coono bu ne mën naa ko yëpp ba mu des coono jaamu yàlla ak coono bu liggéey si tubaab te loolu ku ne mën na ko seet xanaa fanaane naafila yendu ci tooli xel koom yi loolu sëñ bi képp du keneen kon nag maa ngi jégalu dafa am ñu war a wax ci kanam mu mel ne sëriñ Bachirou dafa wax ne dafa am lu mu fàtte woon te jublu woon bu sëriñ Isaaxa mi wax ci turu sëriñ Muntaxa ñëwee mottali ko loola moo di gannaaw buñ ko santalee bokk yëpp mi ngi sant président Macky Sall yónni na fi ministère Baye góor noor yi mi koy sant. ak préfet ak mboolem chef de service yi niñ jàppee ci liggéey bi maire dëkk bii mi ngi koy sant yónnee na fi ay teraanga yu rafet yu baax yu bari yooyu la sëñ Bachir waxoon ne nañ ko ci dolli di sant bokk yëpp di ñaanal ñëpp di ñaan képp ku fi teg sa tànk rek ci dara yi sëñ Abdou Lahat yàlla jéggal la. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu